leen bu kenn taxaw ci alentouru stade bu ko jaree sànni leen lacrymogène waaye nañ tasaaroo mhm. waaw manifestation pacifique yëpp yi ngay gis ñu euh, autorisé ko place à la nation ñu marche mhm. mais du am ñaar du ñàkk mu am ñaar wala ñett ñoo xam ne bu ñu génnee dañuy seet leneen lu ñu dem lijjanti ji du tee police ngi fa gendarmerie ma ngi fa pourquoi ne pas l'organiser mhm. permettre aux gens de tenir leur meeting leur manifestation politique lu ko moy mooy li may wax sànq képp ku fi def meeting d'investiture dañ la ko war a tere ba ci Benno Bokk Yaakaar ci jamono ji ñu toll ba ci Benno Bokk Yaakaar bu ñëwee dañuy def meeting d'investiture même bu dee ca siège u APR dañ ko war a tere D'accord. en tout cas gouverneur bu Dakar dàq na bépp manifestation wala bépp mobilisation euh, diggante euh, suba jàpp euh, dibeer nag kon ci li nga xam mom moy mooy bi lépp capital demb wala sax début semaine bi batay ñu ci wax muy mbënn bi ak li nga xamante wala mbëkk bi ñu bal mom ak situation bi nga xamante mu ngi koy indi ci biir réew bu Sénégal te diwaan bu Saint-Louis am na gaal bu fa suuxoon ba indi fa nak jëyee juroom benn doomu aadama dal ci ñak seen bakkan ci xibaar yi ñu mujjee jot démb ci guddi am na ñaar ñoo xamante ne génnee nañu seen i néew muy situation boo xamante ne euh, xaw naa critique loolu daanaka je pense que libération wax na ci tey euh, kon euh, régie bu fekkente ne libération yor ngeen ko ngeen jox ñu ko boobu lépp yéen kaay wax na ne Mansour premier ministre de l' intérieur Antoine Félix Diome dem na foofu ni ki démb nit ñi ñu ngi wax naan ndaw yi amuñu liggéey il faut ñu wutal leen liggéey il faut ñu rassurer leen teg leen ci situation yoo xamante ne dinañu am maanaam espoir am ëllëg bu rafet bu neex ci biir bu Sénégal moom ci boppam mu dàq li ni mel ne ndaw yi ci boppam du question ñàkk liggéey wala ñàkk parce que ñoom dañuy financer pour dugg ci bateau alors situation bi encore une fois nous di dit, li nga xam ne moom après après réew diggante gouvernement bi ak askan quand même quand même discours boobu ànd naa ci ak moom euh, déglu ko attentivement am na fu mu fu mingat les chiffres yi nga xam moom lañ jëkkoon a joxe ci wàllu xibaar hmm. euh, mu féetale ko Sénégalais yi ñu sauvé ci diggante Espagne

vois le financement deug deug do nga lay tudd. gis nga amul ben désespoir amul ben yakar bu tass bu meuna pousser nit ki pour mu financer voyage bo xamanteni bi xamna ni 95% vingt quinze pour yi mooy mu dee ci géej gi li ëpp ci yakaram moy mu de ci géej gi donc loolu dafa laaj ben Macky Sall mi jiite réew mi Antoine Félix Diom bi demone Saint-Louis ñoom gouvernement bi nee Sénégal di ni politique de la jeunesse bu gouvernement bi dafa lajji waxit la ñëpp xam nañ ko mais loolu joxu une raison loolu joxu le bon benn benn motif pour yow nga dugg ci gaal yi xam nga ki départ gaalam bu ko joxoon ku mën a ku sérieux du ñëw génne si ci bël bi Saint-Louis c'est-à-dire que business bi par contre l'intérieur loolu mu wax noonu man ma ànd ci ak qui a posé la question, nous, gouvernement, nous, la sécurité publique, nous avons fait une enquête pour voir les dealers qui sont tabac Gal pour sacrifier les gens. Parce que qui veut dire, même si vous 5 millions, tu as un gal qui est au de départ. Qui euh, tabac gal est un bon homme, il démarche jeune pour dégager laisser Khalis. Donc, ça, vous tabac égal, il y a 5 ou 6 personnes qui sont liées. Nous avons des jeunes euh, Mali, Guinée, Gambie. ak yeneen dëkk ci Sénégal dajale leen di jokkoo ak ñoom téléphone ci façon boo xam ne kenn du ko yëg mais ñu ngi koy demandé mu ubbi ci benn enquête pour teg ñooñu loxo ñu nga xam ñuy samba booy jàppandalal ndaw ñi di dee ci géej gi. beneen bi ci des mooy euh, nee nañu nee nañu ne dañu weddi woon li amoon ba démb euh, ni loolu du dëgg lim benn nombre ci ay sénégalais yoo xam ni dañu leen sauvé ci dax la nga gis dis déclaration euh, Antoine si Diome. chiffre safano lol ak chiffre bi nek ci communiqué bu ministère des affaires étrangères les questions bi len di poser moy euh ñom ginnaw biñu génné communiqué le même jour fait wéddi len fait mo len wéddi ay fait mo len wéddi ndax le même jour biñu wéddé la am gal gu jógee Kafountine yab 60 quel soixante quelques personnes ñëw ba ndax mu suux donc fait mo len wéddi weddi ñom lan lañuy waxat après ñom seen communiqué donc ben point donc la ci la ci ko validel bi la and bi bi ak mom ci xalaatam parce que non lay wax gis nga du question weddi autorité wala weddi ki non question échange le parce que fi mu situation immigration ndëpp la ñëpp ci joxe sen xalaat moy point bi nga xamantene ma ci and ak à cent pour cent mënoo wax awma oh, liggéey dama ndóol dama ñak am diggante 25 ba 40 ans ba 50 ans am ci sa poste un million yo fayé sa voyage gal te nga ni amoo loo mais un million boo amé mën nga commencer liggéey cinq cent mille francs mën nga commencer liggéey tout dépend nak ci li nga dangoo def mais ak sa intelligence aussi fan la toll sa patience aussi fan la toll parce que ndax xeyul soti loolu itam na ci kenn ku nekk wax sa njaboot gi nga gi nga gi lay dégg sa njaboot gi lay dégg loolu responsabilité partagée la mënuñoo jël lépp aussi teg ko ci ndodd nguur sama jarbaat bu nekk fongeli mi am yéene voyage jaay benn machine am loolu lu ci nguur man li ñu fi ñu intervenir nguur nag mooy mu teg loxo ñi ñi ñi orchestre voyage boobu teg leen loxo parce que ñooñu ay dileur lañu ay samba boy lañ. d'accord beneen euh, boo xamante ne démb ba léegi ñu ngi koy waxtaanee. waaw justement Cheikh Diop euh, dégg nga jàll rapidement euh, muy l'avenue qui a été dénommée en tout cas cette fois-ci l'avenue Macky Sall. fan ci ci ci Ndakaar. avenue Faidherbe lañu changé def <laughs> avenue Macky Sall.

am mbedd tudd ko waa Casamance waaw mi ngi noonu non même même budul waa sax mais mbedd yi nga xam ne nii euh, yi ci ëpp tour tubaab lañu leen jox te joxuñu leen tour yi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk ci dëkk bi wala ñoom ñoo defal dëkk bi am am na benn moment boo xamante ne nii ñu ngi doon agité à que ñu rebaptiser waat suñu suñu mbedd yi jox ko ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkk bi président Macky Sall Macky Sall nag moom wala président Macky Sall ak luñ ko mënti waxal président Sénégal la te wax dëgg fa yàlla comme moroomu président am am na droit ñu tuddee ko mbedd bu fekkee nag dañ ko def léegi-léegi xëy na xalaat yu bëri mën na cee am ku ci hmm. nekk mën kii mën naa xalaat ne affaire politique laa ñu demee noonu mais c'est très lu lu lu mën a nekk la lu légitime la loo xamante ne bu ñu ko ko defee du lenn lu dul euh, delloo ko njukkal rek parce que ak lu mu ci munti demee même bu dee benn kilomètre euh, tali tabax na ko même bu fekkee benn immeuble la tabax na ko ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne nii mën nañ ko ko euh, nangul ci wàllum liggéey. léegi ba ay turandoo tuddee nañ ko école <laughs> danga feete Géejawaay. Géejawaay tuddee nañ ko euh, centre poste de santé ca commune Malikounda. Malikounda. ah na. oui oui c'est vrai mooy mooy mooy bi ñu doon inauguré. waaw bi ñu doon inauguré passé waaw Nguxuj. <laughs> Thiel ci wàllum tàggat yaram foofu la ñuy daal di wax nga nag.